asalaamaaleykum mbokki Sénégal man Baye Moussa alias Pacifique dama leen di xamal ni leen ni ngi ci ñu ngi ñu ngi ci danger bu doy waar ndaxte thermos yi ngeen di gis nii dama ci yor ñaari toj mais biñ ko sottee nii ci kees gi thermos bu ci nekk def na ñetti comprimé comprimé yaa nekk nii donc ñun on est en otage ñi ngi ñuy rey ñi ngi rey suñu askan ñu ngi ñuy jox ay jàngoro yu ñu xamul luñ ci jublu te lii du liggéeyu kenn lu dul nasaraan si may ñaan doomi réew mi yépp nag lépp lu xeetoog termus ak glacier yii di jóge bitim réew nañu ko bàyyi te dellu ca la amoon njaq ki ndaa ndax tubaab yi bëgguñu ñu bëgguñu suñuy maam démb bëgguñu ñu tey te ñi ngi ñuy rey te njiit yi ñu am ñu ñuy jiite it ñi ngi seetaan askan wi tépp ku ci am termus doon ko jëfandikoo na nga ko baax ndaxte yi ay ay ay ay ay moor ralentissement la dañu lay rey petit à petit nga koy naan muy sey sa biir di naan effet bu ne mu koy def sa yaram jàngoro yu bari ngi ci réew mi kenn xamul lu mu doon waaw ma leen koy baax di ko partager ak yéen comprimé yaa ngi nii butéel yaa ngi nii yii ngi tuur ci la génn kon képp kuy jëfandikoo lii na nga ko baax jërë ngeen jëf ñu ngi baalu àq ñëpp. gisee yenn saa yi da gis nit mu naan man sama groupe whatsapp famille suñu mbokk yi nu group boobu duma ci wax giseen fii ku fi waxul ak say mbokk wax ak mbokki jàmbur dee leen wax ak seen i mbokk giseen seen i mbokk bu ñu ubbee groupe whatsapp boole la ca dee ca wax lu mu dee dee sax boo xëyee benn vocal sax nga dugal ko ci groupe bi famille bi xam ne yaa ngi ci jàmm yaa ngi dund ah mais ñu dugal la ci sa groupe bi mbokk ña fa nekk ñëpp yéen a bokk nga lank ni doo ca wax jàppal ne baaxoo bàyyi leen seen yi ngeen di def nii. waxu leen ko commission di ma félicité ambassadeurs yi di ma félicité ñëpp di ma félicité waxu leen ko xanaa naan Cissé Lo nii la mel nii la mel seen baay mënul maa soppi seen maam mënu maa soppi li ma def ci réew mi seen i baay defuñu ko fi seen i maam defuñu ko fi ay doomi sàcc ngeen ak tappalekat di fen ak a tappale nekk ci réseaux sociaux yi ndax di bëgg a dóor. nanguwu leen a liggéey bëgg a tedd loolu du sotti loolu rek laa amoon na may wax wasalaam. Euh, mbokki Sénégal euh, maa ngi leen di siyaare maa ngi fii ci Abuja euh, dafa am publication boo xam ne Seneweb daf ko def Sénégo reprendre ko benn xale bu ñuy wax Sala Gueye moo ko bind la mu ci bind nag wax ni man maa ko wax tudd ci Ablaye juuf saar ak Amadou Ba ay wax ju amul la wax joo xam ne jëlewu ko fenn wax na ca ba tudd ca mag sàll loolu amul moom bi ma woo ci sama whatsapp maa ngi Abuja mu ni ma ndax publication bi yaa ko publier bi nekk Facebook ndax mën naa ko bind waaw laa ko wax mu wax ma candidat Ablaye Diouf Sarr de am na ma ne ko sañ na ko responsable politique bu mag la bu ko neexee nekk candidat ba président de la république man loolu ñoruma li ma ñor mooy candidat lay doon ci mairie bu ndakaar foofu laay yem ak moom amadu Ba kenn tudd ko tuddu ñu fa Macky Sall mu bind lu ko neex publier ko loolu